Serigne Mbaye Sy Mansour bii dafa dem dëkk bu ñoo wax Palmarin fii ci Mbour am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg mu ne ko amul ah, ko benn doomu sëriñ Babacar ci kaw suuf benn sëtu bu mu taxawati ci kaw suuf ci moment boobu ci la Pape Malick dem ñu pare nag ni ci mën la ñu jëm si ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo mbokk a ngi toog fii bu ñuy wax abu Bakr Dia di doomu góor gi Ousmane Dia moo daan ànd ak Chérif Tahir moo gis maam Habib si benn rakku maam El Hadji Aziz si maam Habib wax ko moom Abou Bakr ni ko waxal Moustapha ni ko bu mu tiit bu mu ragal ni ko ndax mag ñi kenn toogatul ndax yàlla ak moom mu ni ko te boo demee nga wax ko ni ko dese na mi at ci dundam ma defa ni kan nag ku yàkkamti demal ca bàmmeel ya xaar du dëgg waxin la rek c'est l'éternelle répétition de l'histoire inna nahnu natarabbasu bihi raybal manuun góor gee ko nettali ñi daan dem ba duñu ubbi seen kantin di jaay ñu ne leen lu tax ñu ne fekk yonent bi du dund rekk dootuñu tal dara na fi jóge rekk loolu du fi jóg waaw bu ko defee kon nag ndeysaan fatan aasha mahmudan wa maata muhammadan fa aatayta lil aishi qadran wa lil mawti miqdaaran azima waaw